Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour euh, de ce 28 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV dañuy dem nag ci li nga 31 décembre du jour boo jour bu décisif le jour historique j'ai ko ci ki le chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall ginnaaw li nga discours traditionnel bi nga la président Macky Sall dina amal le 31 décembre 2023 lii di discours am bu mujj jëmale ko ci nation Sénégal don discours bo xamanteni discours buy marqué histoire Le jëm ci ay accent yo xamanteni da fay legge li nga xamanteni moy la prospérité ginnaw lol dal le 31 décembre fi ak ñetti fan ki di président de la république Macky Sall dina ak askanu Sénégal jébal leen li nga xamanteni moy dernier discours de la nation en ce jour du 31 décembre 2023 ginnaw bi nga xamanteni discoursum discours bu muju mi ngi reposé won le 3 juillet ginnaw bu mu bañé répondre que li nga xamanteni moy mooy Sénégal. yi jëmele ci troisième mandat bi nga xamanteni mom Din lañ ko joon diñ ki di Macky Sall dugg ci li nga xamanteni moy mooy histoire politique ginnaaw bi nga xamanteni activé war na li nga xamanteni moy vie politique bi nañu jàpp ni que daal lii 31 décembre dina doon ben discours bo xamanteni dina am ben importance jëmele ko ci lepp lo xamanteni ni won na ci 3 juillet ginnaaw bi nga xamanteni ni dissoudre na lepp lu jëm ci discours bi nga xamanteni amon na importance ci dundam ci politique ci biir loolu nag la jagleel li nga xamante ne mooy bilan bi nga xamante ni dina ko def ci atum 2023 ba noppi daal di sukkandiku ci fukki at ak ñaar yi nga xamante ni moom en tant que président. de la République du Sénégal moom décidé na daal mettre li nga xamante ni mooy hors portée li nga xamante ni mooy politique bi muy discours boo xamante ni le 31 décembre dina doon benn discours boo xamante ni tey mën na doon histoire bu diñ jëmale ko ci ay aje yi nga xamante ni kii di sengor ak képp koo xamante ni topone nga ci mom ku ci melni George Washington ginnaw bi nga xamanteni def na ñaari mandat fi nga xamanteni mo di di discours dajé ginnaw bu mu défé lépp lo xamanteni américain yi def nañ ko ci ay recommandation ba noppi daal di structuré lépp loo xamante ni mën nañu ci politique américaine mi ngi relever dal ben approche bi nga xamanteni ni di jogé ñalé di président de la république Macky Sall ci États-Unis dafa don ben tradition bo xamanteni tay mën nañu japp ni que lépp lu jëm ci discours bi nga xamanteni discours d'histoire liñ lay don mu doon nga xamanteni discours euh, boo xamante ni tey dina bàyyi benn courrier jëmale ko ci successeur am muy discours boo xamante ni le 31 décembre dina doon la même chose ginnaaw bi nga xamante ni kii di suñu source bi nga xamante ni indiwul benn différence jëmale ko ci ay recommandations yi nga xamante ni kii di son excellence le président de la république Macky Sall dina ko def ci Sénégal ginnaaw lii nga xamante ni mooy postérité bi suñu sukkandikoo ba tey su suñu source boobu mi ngi xamal daal nañu xaar daal benn discours boo xamante ni politique du donne lo xamanteni ni dafay recevoir kenn ci nga xamanteni discours bi nga xamanteni président de la république Macky Sall dina ko yëkkati ginnaaw bi nga xamanteni ci biir histoire bi dégg nañ ci lépp loo xamanteni war na des pour ñu mettre ko ci kaw li nga xamanteni ni mooy ay contingence jëmale ko ci conjecture politicienne bi nga xamanteni tay tey moom la ñu am fii ci Sénégal en tout cas kii di président de la république Macky Sall après douze ans passés à la tête de l'état du Sénégal mu nekkoon fa chef suprême de la nation qui di président dina def discours am bi nga xamante moy discours d'adieu discours de tagoto donte bi moy don dernier discours am ci de la nation jëmale ko ci bop état du Sénégal mais dina don discours bo xamante bu historique lay don suñ ko méngaleeg tradition américaine dañ koy sukkandiku ci discours bi nga xamante George Washington defon nako ginnaw bu mu defé ñaari mandat en tout cas le 31 décembre le président de la République maxal dina jàkkaarloog askadu Sénégal wax les limousines qui liggéey ci diiru fukki at ak ñaar ci bop Sénégal. Sénégal ba noppi daal di leen tàggu si jàmm ak salaam. Thank <laughs> you.